mbokki waa info ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ngi ñëw fi nga xam ni mooy golf fekk fi nga xam ni mooy ko koñu Balla gay fas yéene laaj tàllal suñu micro ñu wax ñu nan lañ gisee Balla gay ak Modou Lo Issa sama caméraman topp ma. Modou Lo nan nga ko gisee. non Balla da koy dan ah. Modou Lo nee na 1 la de. non jamais 203 dañ koy dóor ba keroog muy wàcc moom Balla daal da koy gañe de du moroomam sax. ah ñun moom pare nañ suñu combat bu baax. di ñaan yàlla sunu mbër am ndam mi Balla Gaye numéro 2 doomi Double Less Modou Lo Modou moom amul fit bu amee fit na taxaw dëggal borom ba arbitre bi na taxaw bu amee fit na taxaw di ñaan yàlla Balla Gaye yóbbu ndam la biir Guédiawaye indi ko fii bëggal ay subateeram bëggal askanam bëggal ñëpp waa Guédiawaye képp ku fi dëkk di ñaan yàlla mu am ndam te Modou Lo nee na 1-1 bi 2-0 la combat bi 2-0 la fu ko Balla di indi fa lañ koy kese la accueillir Balla Gaye ak Modou Lo. bu metti de du yomb nag ñoom ñaar ñëpp du yomb mais nag ñu ngi ñaan yàlla Balla yal na yàlla Balla yal na Balla daal ndax daanoon na ko dina ko daanaat na mu ko daaneewoon rek dina ko daaneewaat léegi. Modou Lo nee na combat bi 1-1 la. day wax lu ko neex rek combat bi du 2-0 la maa la wax lii 2-0 combat bi 2-0 la Balla Gaye na ko daan daal bu leen nañ incha allah. jërëjëf. tedd ñu ngi lay waaw ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. Balla waaw Balla Lo de combat bu nar a neex la moom incha allah waaw. Modou Lo nee na 1 lay def. ah sama yaakaar daal damaa gis ni Balla moo ko moo ko moo daal loolu laa yaakaar sama xalaat. papa ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay. Balla na def ci jàmm ak salaam. jërëjëf. jërëjëf lay doon waaw. Ah. waaw Balla Gaye lu ko neex rek lamb ji 1-1 lay doon ah. waaw rafet na. lu meilleur gañ rek. que ah. mayor meilleur gañ. incha allah suñ moom la ñaanal quoi. kan mooy suñ mbër. Balla Gaye la ñuy ñaanal. xoolal. Balla Gaye nee na day dóor Modou Lo neen day dóor Balla waxam la wax rek. xalaatam la wax rek. Ah. waaw. kon yow loo gis. ndam rek incha ci kan. si Balla Gaye. dinañ ko dinañ ko daan. Ah. incha ah man kaw si dara. Balla Gaye daan da koy dóor mu daanu. mais Modou neen dale un de. un un deux lay doon. Ah. loolu waxatu ko. kon leer na. waaw ah. loo daan rek. Ah. waaw. booy ñu la. Modou Lo yeewuñu ay supporteurs ñooñu ñëpp. waaw. Modou Lo nee na day dóor Balla mu daanu. ay waxam moo bëri moom moom xam na Balla Gaye bu baax wër na yàlla ay waxam moo bari rek. ku baax ñu ngi lay jaar. waaw ñu ngi lay delloo ziar baay. Balla Gaye Modou Lo. yàgg na Balla daan na ko. Modou Lo nee na da leen di dóor ngeen daanu. non moom la ñuy dóor dañ koy duma ba pare doo ko daan sax loolu rek la am ci combat wax ji gaa yi ñu koy jàpp. 1-1 lay doon 2-0 lay doon. 2-0 <laughs> tey mbokk yi nag waa Guédiawaye info tey ñoo ñëwoon juste pour ñëw ko ñu Balla pour tàllal suñu micro wax nañ ñu dégg nañ mbokk yi fii dong fii kase fii la làmb ji di faree te fii lay fuuree. ma beneen yoon